chaque jour chaque jour tal, chaque jour tal taal kër taal oto ah daj ay magasin ah Li, bo kañ état bi kese moo ko régler mais ñun mënuñu kaa régler état bi na jël ay matukaayam su nekkee laaj na bakkan ñu ñu ñu ñu ñu def ko ndax lii yow dem boy tal juma non affaire jaaxle nañu vraiment état bi da ca dafa war a jël ay ay ay ay ay ay programme am. non nee a ngi demandé au secours di yoon nii baaxul de fi jëm baaxul. dañ am na mën nañ ka réglé ndax lii lii lii jaaxalu leen. waaw ñoom nag ñooy dox suñu erreur dañu ne lii ñu def nii yoon mënu kaa réglé. <laughs> leen na kaa réglé ci trente secondes. yoon da koy réglé. non. waaw moo tax ci erreur rek la ñu dem loolu nag la yoon war a def yoon taxu yi Dakar seen ndey rey leen ñu réglé réew mi mu nekkaat fi mu nekkoon. wóyaay wóy non. après yàlla ngi lamenté wu ñu doon saaga Sonko yëpp instant bi ñu ñu ngi demandé wàllu. waaw am na xaru xol trop trop trop vraiment alors euh, Habib ñu bàyyi la nga tàggatoo parce que demande yi ñoo bëri fii si suuf. waaw d' accord euh, Moustapha man daal euh, wax dëgg yàlla li ma la wax léegi rek. cri de cœur bi mooy mooy xam naa ne ci rek leen ko suñu bopp li ñuy mujjee comme ni ko Yankuba waxee léegi te loolu bu ñu fa moom day doy waar parce ku ñu nga rey tamit dafay doy waar te ñun pare nañu ah. voilà donc yaa ngi lay def modérateur incha daal loolu la quoi Moustapha maa ngi bàyyi gars yi ñëw quoi voilà yow moom je suis derrière tu fais un combat noble quoi yow mom ci yara ak teggin nga koy teg quoi dégg naa li ngay wax ci Papito Kara moom mais ñom ñëpp c'est des imbéciles ñom non ñoom ñëpp. parce que live ñi def live ñuy def ñom ñoy def live di inciter boy ay Dakar Buzz ak yooyu noonu sans limite ñom la voilà donc euh, il faut arrêter, il faut les arrêter quoi voilà jaajëf Moussa Ba merci beaucoup allez. non affaire yi tas <laughs> ñu ngi demander aide. merci. Traoré bëgg naa def modérateur mais compte privé nga am te demandé woo ma quoi moo jibi jibi jibi dem TikTok di ko ngi doj waa APRA au lieu ñu dem xeexal Macky Sall ñu ngi ay bukkat lañu ok ñu ngi koy rafetlu bu baax ñu ngi koy rafetlu comme ni nga ibbee ligne ni ku nekk sa yëf na nga ko sa bopp ku ko bal do bay ben samba boy joge fe ñew fekk yow li nga am yang ngi ko ay at pour am ko mu ñew ci ay seconde mu katal mu jeex ku bëgg def lolu boko ko dor ko bal tout fofu lañ tollu di leen jaajëfal yéen ñëpp. def merci beaucoup grand merci en tout cas cadeau yi rafet na merci beaucoup. waaw kilifa gi maa ngi ya? maa ngi ziar naa ko nu demee yaa ngi si jàmm. Mamadou nga bu baax euh, Fadou Fadou tëjal sa micro war ñëw. parce que tëjal sa micro bi. waaw man dama si bëggoon dama si bëggoon andi ñaari kàddu rek. di wax ni waa bon xam nga gars yi nag fii aussi ñu bay aussi euh, bon di paniquer quoi parce que aussi man moom. Euh, sagar la jóge presque géejewaay bi voilà yoo xam nga ni kon bon dara xew fi donc gars dañuy manipuler aussi dañuy génne ay vidéo yàlla ministre aussi ministre yi xule taal sa kër je pense que aussi ils prennent pas la responsabilité kon il faut aussi loolu ñu waxoo que ne kon ministre ku ñëw di taal sama kër sawaay dinaa si wàccee même bu dee aussi ay caaxaan la ñoom waruñu toog di seetaan ay ay samba di jóge fi naan dañuy taal seen kër dafa yomb trop voilà ñoom ñoom ñoom ñu ngi ci gouvernement donc am nañ les moyens am nañ lépp dañ bàyyi caaxaan. ndax affaire ngi doog a doon ay nit léegi nee na ñoom xeex ah, mais communauté am nañu ay moyens fi jëm baaxul si ñi loolu laa amul lu may wax dama xaw a jàpp damay reer nii sax euh, coach ma baax si ñu daywaat ci live xeexal jaay voilà affaire jóobeen quoi def affaire jóobeen quoi. waaye yooyu ku am fu nekk affaire reeral nga dem tëdd ginnaaw. waaw waaw gis nga damay def affaire. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. jaajëf ko ci kanam en tout cas ma bàyyi ñeneen ñi jël wàllu maa jàpp. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp man moom peut être ya, li may ya, wax sax amaana du bëri. juste que dañoo solo ñu ngi lay ziar ñu. Mhm. en fait man peut être mën naa wax ni que man maa ngi bokk si ñi nga xam ni faraluñ Macky faraluñ Sonko mais juste que dañoo sonn réellement parce que lu mu bon bon on peut dire que suñu président mu ngi ñuy seetaan parce que lii nii yëpp mënoon na ko dakkal mais non mi ngi toog. di setaan ñun amaana peut-être amuñu ñoom xëy na seen doomi lii nii yëpp bu amee seen doomi la ñuy njëkk rawale yóbbu leen à l'étranger protégé si yaakaar moo tax ñu fal ko donc lii daf ci war a jug parce que trop c'est trop amatuñ droit génn suñu doomi yi jàngeetuñu école man mi ngi nii sama doom sugu du jàngi parce que xalaatuma mu génn nii ak condition yi dëkk bi mel qu'on se dise la vérité man Sonko ànduma ak moom mais peut-être Yakar moo tax jeunesse bi top ko parce que jeunesse bi gisuñu seen bopp Sénégal qu'on se dise la vérité dëkk bi metti na liggéey amul wallahi asi man mangi ni. amna am sama master 2 stage sax mënuma ko am mais grawul je gère maa ngi gérer sama commerce mais bo gisee yaakaar motax ñu top ko tamit nek président amana bu ñu gisul lu ñu neex ci mom day wàccaat parce que suñu carte ñun ñoo ko suñu rew ñoko mom mais juste que suñu président nañu jàppale ngir yalla

li tax ñu fal ko mooy mu protéger ñu bu ñu demee ba gisatuñ loolu day doy waar. moom lañ mën a voté ñu ay jigéen lañ. par exemple ñu <laughs> ngi demandé au secours. non mais moom ne laaj bi mooy la woo ci yoon. askan bi génn ne Ousmane Sonko du wuy ñi si le président moom li mën leen rek la mun mooy li mu def nii barricade au moins kër Ousmane Sonko bu bis bi nga war a jébbal yoon ñu yóbbu ko ci yoon jébbal ko ko quoi. non pas général ci waa militant APR yi ñii à ce jour dañoon saaga Sonko mais instant bi panique mooy technique bi ñu génnee léeg-léeg parce que léegi revanche lañ jël maanaam ñi nga xamante ne ñoom ngay sànni ñu <laughs> lu mu deedee pen bi gën a léegi nga tëdd lu mu deedee six mois euh, fi nga xamante ne mooy kaso def naa yooyu mooy décision yi état mën a jël parce que mënul jël xamul kan mooy taal kan mooy yàq ñi nekk si sur le terrain rek lu mën a jàpp xam ne ñii ñoo taal bañ jàpp leen sur le terrain wala yow gisoo loolu non si loolu laa gis may

moy que ne soit dañ ka jim viol ginaaw biñ ñu ko jàkkee si pambay ñaa ci fenn biñ ko jappé ci sos ak katch ak waxal nit ñi lo xamantene du dëgg ak appel à l'instruction yimi def manam di wor nit ñi ci yak yëfu jambouri tay li muy indi procès li tax nit ñi di yak moy que ne donte biñ ko daané ci fenn ak katch ak sos ba paré dafa violé ki nga xamantene moy aji sa d'après aji sa du dëgg la wol du dëgg ñu gis ne luñ ko yoon ci wax biñ ko laajee question du tontu lo ko ADN mu bañ ko maintenant ñu ne ko ka wuy ji yoon défendre sa bop parce que tay bu doon man la bu doon keneen ak keneen ak keneen la naa mii da wax kooku lu si yoon maara détail ñaanuma ko yàlla nattuma ko ci yow mais tey bu doon yow benn ji góor sàkku nga am kaaw viol defe naa kooku da ko yóbbuwoon si yoon tey bu naree bañ a wuy ji si yoon yow yaa ngi wax état non journée bi la man yàlla xam na ni farul ma Sonko man man je suis apolitique faralu ma kenn man la lenn laa lijjanti mooy sama Sénégal na nekk si jàmm parce que fii laa dëkk yaa ngi comprendre nit koo xam ne nag boo ko laalee dëkk bi yongu nañ ko bàyyi ngir yàlla ak yonent bi parce que quoi qu'on puisse dire peut-être attends peut-être viol bi xamuñu xamuñu ndax moo def xamuñu ndax defuñu ya moom moo xam ak yàlla ak peut-être ki mu ko seqal mais man lenn laa bëgg nañ ko bàyyi ngir yàlla dëkk bi foo tourné ay gendarme la du yoon. du wax def xaar xaar ñu dégloonte dafa wax am wax bu am solo boo wax da nga ne bi xamuñu peut-être moom moo ko def ak yàlla loolu tontu nga ñi Ousmane Sonko génnee ba ñu dee ba tey ñu doon 17 morts parce que xamuñu mënoon yoon àtte bàyyi yoon def ay investissement parce que yow mi bu la yoon bu la tooñoon da nga yóbbu ci yoon yoon defal la ak boo dégloo ku jigéen ki daal di am jàmm xam nga Sonko loolu bu la léegi nag Serigne Mbacké Ndiaye moom génn na Sénégal instant bi dem na làkkatu ji kër ga nee nañu à deux pas kër Maître El Hadj Diouf la xale yi euh, euh, pas Maître El Hadj Diouf Pape Diouf woykat foofu tamit boo leen demee kos dinañu neex trop instant bi kos moo xew ci ngeen panique général APR ñu ngi bëgg de dee seen rukk-rukkaat yi ñu ngi jooy de ñu ngi demandé Macky Sall au secours kay jàppale ñu yow yaay président de la république ñëw a régler affaire bi instant bi panique général lu ma déggati ci waa APR rek naa la ñëw indi ñoom xeexuñu de amul benn militant wu APR bu génn ca de ba ne day joxe bakkanam ngir Macky Sall amut dégg ngeen ko ci live bi nee na ñu Macky jël matuwaayam ñoom jàmm la ñuy ñaan ministre yi rawale nañ seeni doom ñoom seen yuur yaa ngi commencé yéew j'espère que fii balaa suba nañ comprendre que ne ministre yi ñoom ñëpp raw nañu seen bopp ña ca des ñu ngi ca teeru ba ànd ak seeni gel wala seeni jabar di kole seere wàcc ñoom policiers yi ñàkk fayda yi ci mbedd bi ñu leen di lacrymogène nervi yi nag nee nañu man maa leen koy wax nervi yu Farba Ngom embauché nee nañ dañuy dem encaissé seen xaalis ba pare bu ñu paree dañuy gàtt sa gàtt sa dégg ngeen nervi yi nee nañ dañuy gàtt sa gàtt policier Macky Sall yi tamit une partie nañ ñoom tamit ci guddi bii dañuy gàtt sa gàtt sa pourquoi parce que këru ministre yi am na ay télé yu rafet yoo xam te ni yi amuñu ko am nañu micro-ondes yoo xam te ni policiers yi amuñu ko policier yi nee nañu ñoom tamit dañuy gat sa gat sa si guddi si nii man naa ngi koy jottali nervi yi tamit nee nañu dañuy gat sa gat sa si guddi si foog naa ni guddi si tey mooy nekk guddi ba gën a gudd ci guddiwu Macky Sall <laughs> maam day veillé ñaari portable la am xooleen one and two maam dafa am iPhone am Samsung ñaari xol fu nekk lay connecté live bu nekk lay dugg xool fan la situation bi toll nelawuma damay veillé ba ñu génne pataa bi Macky Sall nag naa fan la nekk Saint-Lazare la nekk Saint-Lazare la dem nekkul Mermoz nekkul ci pale bi mu ngi Saint-Lazare ñoom ñëpp famille ba ñu ngi Saint-Lazare dem làqatu foofu noonu di yurndu ci internet bi xool fan la situation bi tool mhm. bu kat la ñu <laughs> xaw yi neex na ba pare <laughs> man xamoon naa ni génnu Macky Sall la nii lay demee <laughs> xamoon naa ne Macky Sall buñ koy génnee ci pale bi nii rek lu mën a demee parce que baadoola la. dañ koo dugal votel ko mais dem bi xamoon naa ne dañ koy iri di ko génne ci pal bi one and two deux portable Macky Sall xoola fu nekk lay yundu dangay ngay waaja dem yegg Saint-Lazare lañ ma ne tu à cinq minutes de Saint-Lazare mais foofu noonu le meilleur on le garde pour la fin xale yi da ngeen di kos kos kos kos kos da ngeen xamte ni policiers yi iri ngeen leen tas ngeen leen quand la voie sera libre vous allez en finir une bonne fois pour tous doto waxati yenn ministre ñu ngi terre bi Faut terre bi yalla leen fekk nak ñu nekk jabar yi en pyjama vous par benn xew bi dafa neex <laughs> wacc bi rek bu ma adresse ko que fi li très bien dix sur dix tey yéen a jël ndam li <laughs> non APR <laughs> waaye ana Kaliphone ba xam Kaliphone génn na ci mbedd bi ah ah ma rek kër Kaliphone Kaliphone néeg rek la fa am bu leen taal kër Kaliphone dégg ngeen foofu leen ko taal mais Hélène Françoise mu ngi ca Thiès yi ngeen Thiès boobu noonu Yankoba Yatara mu nga fa Idrissa le traître mu ngi fa foo leen mën a kos rek kos leen dégg ngeen ñun ñoo koy coaché fii depuis Paris la France <laughs> noo yii laa mën a coacher gars yi nañu veillé dégg ngeen dinañ xool bu kenn nelaw tey ñun ñoo xewle ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun opposition bi ñun waa àndandoo Sonko duñu sax waa Pastef dañ naan waa àndandoo Sonko mooy ñi ko bëgg sopp ko ah ñenn ñi nee nañ waa affaire u euh, nu mu tuddati fans club la kon nañ leen léegi ñun fans club bu Sonko bi ñun ñoo xewle eh, eh, xew bee nga xamaasee neex de xamoon naa ne xew bi dina xaj dina neex

buñu talé ba paré dafa ñuy jaaraat deuxième round nervi yi Farba Ngom da leen jël Farba dafa def tay nervi yi comme ay con jël ay njabootam tek leen ci ginnaw nervi yi Farba Ngom yi nee wax nañ ko ñu ne ma maam bu la dara siège APR nous on va encaisser mais buñu paré on vient dans le gatsa gatsa la <laughs> le gatsa bi di neex <laughs> mois de mars bis rek <laughs> xaw bi dafa nara

bu mu fi wax naan waa dëkk bi jàmm la ñuy xaar déedéet déedéet là c'est fini c'est le gatsa gatsa comme le dit en français euh, c'est le gatsa gatsa <laughs> nga traduiral comme <laughs> le président Emmanuel Macron ñu nekk Sénégal dafa am lu xew léegi le gatsa gatsa dinaa woo sama xaritu panafricain yi nen dafa am lu xew léegi Sénégal le gatsa gatsa <laughs> branco sax jàngal lañ ko le gatsa gatsa Maki, où il y a le Gatsa au Sénégal. <laughs> oui, aïe, oui. Non. non Avec je suis sama ngi une information rek léegi temps dugg Guinée ay information teg bu ma diggaatee wa APR di joy. je nilenko Là, ko live bi ni today les militants de APR demandent au secours parce que c'est trop dur le gatsa gatsa ngeen partager ko ci seen panel yi ngeen kukkali leen benn par benn benn par benn Sonko yàlla dina ko protéger ndax gatsa gatsa bi bu safee gatsa <laughs> gatsa bi rek a tax mu dellu ginnaaw da ngeen fàtte gatsa gatsa mois de mars président Emmanuel Macron ba ñu takk taalee ñaar ñett ñeent dafa woote oui euh, essaye de de d'arranger oui il faut pas que il continue de brûler nos trucs mu ne ko tout de suite mu woo mais c'est le gatsa gatsa <laughs> oui sama gars yi kanam nelaw amul <laughs> partagez leen le maximum le maximum foo leen gis waa APR partagez leen foo leen gis photo Macky Sall tagee sa Macky ci live pour mu déglu ne ah kii nee dof dof le meilleur on le garde pour la vraie xale li ñuy waajal dof nday nga <laughs> dof nday buñ ko jàppee dina xam lan mooy gatsa gatsa di ngeen ñu mosuloon xam gatsa gatsa di ngeen jékki-jékki ba tubaab yi naan mais on entend les Sénégalais dire le gatsa gatsa c'est quoi le gatsa gatsa xam nga bi ñuy jël indépendance waxuñu woon gatsa gatsa mais ti ngeen dégg tubaab bi yëpp dañ def xam lan mooy gatsa gatsa moo bi ci boppam la ñuy commencé ne traduisez-nous le mot gatsa gatsa pour le gats gats buy wax mu ci maintenant les sénégalais ont dit le gats gatsa ça veut dire tu me gifles je te gifle tu me mords je te mords et même voir te mordre deux fois trois fois pour que yow sa cerveau bi ñëw doog a Gats gatsa gatsa dictateur partagez le maximum je savais que ça allait arriver <laughs> ils n'ont pas dit le dernier mot hein. Et les nervis n'ont pas dit le dernier mot. Et les policiers ils sont n'ont pas dit le dernier mot. Parce que comment tu peux prendre un policier, le payer 80 000, qui n'est même pas l'argent de poche de ton enfant, toi le ministre, toi le président, et lui dire de te garder. Comment tu peux payer un ministre 80 000, même pas 200 euros, 120 euros, pour que il te garde ta maison qui coûte des milliards. les policiers,

Les ministre des sports buñu lak lakk suñu ont la jël jëndal na ci tax coroom kam doon doxaan jëndal nako ci kër ñu jël suñu ah ci coupe d'Afrique bi diko seddo di dem ci ay hôtel de luxe di Ils ont ci ay hôtel de luxe ñeenti auto imaginez-vous ñeenti auto bu dé auto bu nek quarante millions multiplié par 4, c'est combien de millions qu'ils ont brûlé là ça fait mal hein? Néna affaire bi ko day doul ben auto buy jar quarante cinq rek buñ ko laké 45 millions rek buñ ko laké metti na ci xol ñu lakkal la ci ñent tek ci sa kër buy jar ay milliards bu né nee méttiwul rek rek rek day fen maam mo le né day duur metti nako ko ba fu yàlla xola fu woo leen ko nat rek metti nako mais comme il essaie d'être arrogant mais bu toogee ci rukkam dina jor man de ku ma sama benn oto bii nii jaru sa 45 millions daf may métti wax ma la ci ñeent yoo xam te ne jar na 45 millions ou plus ou 80 millions parce que oto yañ fa lakk yépp c'est des voitures de luxe c'est pour blanchir l'argent voilà Me El Hadji Diouf nag boo leen koy lakk xool leen bu baax parce que benn kër gi lu yaas la benn kër gi te ci lu yaas donc boo leen di lakk tamit xool leen kër gi mu moomal boppam ngeen lakk ko mais bi mu nekk lu yaas lim dimbale leen rek ka moom kër ga Farba Ngom dese na fa yeneen kër dem leen Moustapha Niass leen fàtte moom tamit deewagul te li mu sàcc lakk jeexalu <laughs> ku lakk sama vélo ma cardiaque yàqkan <laughs> yàqkan mais moom ne instant bi mun mu ngi cardiaque de <laughs> sama gaay nekkul ci benn dëgg dégg ngeen waa APR de ñu ngi jooy ba léegi de léegi nag nii lañ ko nar a jàppee fii ba suba dégg ngeen voilà yéen donc xam ngeen yéen amoo leen amuñu adversaire sur le terrain parce que waa APR ñu ngi live di jooy ñu ngi lamante wu ñoom ñu ngi xaar Macky Sall ñoo sauvé leen te Macky Sall bu kat la mu ngi dem toog fële làqatu Saint-Lazare di xaar bu dëkk bi tàkkee ñu dugal ko ci benn bateau rawale ka mooy ku ñu yaakaar ci boppam mu ngi waaja mu ngi wut nu muy génnee ci coow bi marabu yi nag bu fi kenn wax curé yi bu fi kenn wax boo leen bëggee euh, population bi continuer di leen respecter depuis boobu ba léegi ñu ngi leen di woo ñëw leen venez nous sauver venez nous sauver waxoo leen léegi nag comme gatsa gatsa bi démarré na bu fi kenn wax bu kenn woote naa noonoo na sedd noonon gatsa gatsa bi ça a démarré te xale yi waxoon nañ leen ne bu ñu commencé gatsa gatsa bi du arrêté ba Macky Sall jógee ci palais bi may ne xale yi dem leen libérer prison yi comme ça ñi nekk ci prison yi ñu ñëw bokk ci gàtt sa gàtt sa allez libérer les prisonniers guddi bi il faut que prisonniers yëpp dem fanaan gi seen kër nga prisonniers yi boo leen leen libéré ñu ñëw yokk ci suñu armée bi Macky na xam ne yàlla julli la santaane allez libérer les prisonniers là-bas suba suba suba waratul am benn prisonnier moo tax xeex bi warta arrêté dafa war a gën a boy ba mu génnee ñu nekk ci prison yëpp Ben, par ben parce que tenir Macky en otage instant bi wara dem dem dem dem ne ko les gens bi président Ousmane Sonko tranquillement proclamer ni dina bok ci élection par la force libérer ñi nekk ci prison yépp bu fa kenn les loolu mo nek mot d'ordre bi loolu da ngeen kay wax bu mu leer ko

dañuy renforcer dose bi renforcer ko renforcer ko renforcer ko ah ba nga xamante ne dina génne prisonniers yi wala ñu dem libérer leen par la force Sonko dina bokk par la force tant que defu ko tant que Macky Sall doonul nit bu leen bàyyi nee naa leen nervi yaa ngi ñëw ci guddi si nervi yi du ñu jàpp kenn man maa leen ko wax yenn policiers yi nga xamante ne ils sont corrompus ñoom dañu solu comme ay Baye Fall pour ñëw dugg ci xeex bi bëccëg bi mais guddi si kenn du dem risque bu bakkenam pour Macky Sall dañuy ñëw ànd ak yéen dem jëli ji la leen appartenir ndax bu boobaa ñàkk fayda la ñuy doon guddi si la Macky Sall di gis loo xam te ne mos ko gisee àdduna maa ngi leen di nuyu leen sant leen gërëm bu wëndu aajuwaatee tamit ma génnaat wax leen actualité bi dinaa génnaat wax leen actualité bi donc ba ci kanam.